TV ñoom nag gannaaw ba nga xamante ni ñu doon amal émission bu am importance loolu ah, di yeete rek waaye nag di jàngale bu baax a baax ah, mu mel ni nag moom ni kii démb dafa daal di génn àdduna rek ah, ak tamit sax relation bi nga xamante ni nemmeeku woon nañ mu daal di koy am ak ki nga xamante ne moom moo di Pape Cheikh Diallo bu télévision Futur Média moom nag nekkoon sax ab yaayam waaye nag gannaaw ba nga ni mbir mi daal di am kii di Ami Collé moom tamit nekk ab actrice ñu daal di koy ràññee bu baax ah, mënatul téye boppam gannaaw sax témoignage yi nga xamante a ah, mu ko doon def rek ci kii di ah, mama Absa waaye tamit mi nga xamante ne moom la doon bokkal rek bii les émission di waxtaanee ko daal nay témoigne rek ci ki nga xamante ne moom moo di mama Absa nekkoon koo xamante ni tamit c'est une femme pieuse waaye tamit une femme de principe mu nekk ay témoignages yoo xamante ni kii di Ndiaga Fall daal dina koy def ci ki nga xamante ne moom moo fi bàyyi ko di mama Absa xanaa di ko ñaanal rek yàlla yërëm ko te xaaree ko. aljana wax ci kii di délégué Amar ak sax coowal Liw Farmaren gannaaw ba nga xamante ni sax moom Liw Farmaren dañ ko daal di kidnappé woon rek loolu bokkoon na ca kàddu ya mu yëkkati woon rek teg ko ci woykat bi di Wally Ballago Seck ñoom nag ay ñooñu Wally sax lañ jàppoon ne ñoom ñoo ko daal di kidnappé rek torturé ko dóor ko ci kàddu yooyu nga xamante ni sax moom moo ko waxoon moom Liw Farmaren nag moo waxoon sax ne ki nga xamante ne moom moo di délégué Amar ak ñooñam ñoom ñoo daal di def li ni mel waaye nag gannaaw si loolu ab plainte sax jógoon na rek tukkee ci ki nga xamante ne moom moo di Makhtar Diop Soubatel gannaaw ba ñu jàppee sax liw Faramaren daf doon wax naan kii di Makhtar Diop Soubatel moom moo ko daal di fay xaalis bu bëri rek ngir mu daal di wax kaddu yooyu waaye nag mu mel ni ah, jàmm daal dinay dikkaat ah, ndax kat moom délégué Amar dem na ba ca kër Makhtar Diop Soubatel à travers ki nga xamante ne moom moo di Abdoulaye Diop Xaas daal di présenté rek ay excuse am ah, ci li nga xamante ni sax jot na xew mu mel ni nag jàmm daal dinay dikkaat gannaaw coow li nga xamante ni sax jóg amagoon ci diggante kii di Liw Faramareen Sidi Diop ak kii di Wally Balago Seck alxayri jip ci journaliste bu 2STV bi di Astou Dione moom nag elle s'est pendue loolu nag gannaaw ba nga xamante ni information bu wadd sànq la mu luy wuyoo sax ci trou madame Seck moom Astou Dione nag gannaaw sax yenn ci ay tuuma yoo xamante ni nekkoon na daloon na sax ci ndondam la ñuy wax mu nekk loo xamante ni moom génnoon ci benn plateau 2STV di demantir sax bay jooy ci sax ay kaddu yu ñaaw yoo xamante ni tegoon nañ ko ci ndodd kàddam mu mel ni nag jamono ji madame Seck lay wuyoo moom Astou Dione nekk journaliste boo xamante ne kenn dootu ko présenté fii ci Sénégal notamment foofu ci 2STV nekk tamit ku mën lool liggéeyam ba muy def muy wàllum tas xibaar moom Astou Dione nag madame Seck lay wuyoo xanaa rek di ko ñaanal heureux ménage. wax ci beneen plainte muy kii di Jeba ak Karim Xurum Xaq Abdou Karim Gueye ci loolu nag fan yëpp ñu ngi gis kii di Abdou Karim rek. Jaba ngir mu daal di retiré rek bii les ni mën nañ ko méngaleeg sax wàllum pornographique ci loolu nag moom nag gannaaw kàddu yi nga xamante ni sax ko ci son bi daal di koy déranger loolu ba mu daal di nag déposé woon a plainte waaye nag mu mel ni ba mu yëkkatee kàddu yooyu ba tey rek ñii ñi daal nañuy génn ci internet bi a rek défendre ki nga xamante ne moom moo di Jaba ci son boobu génne ku ne nag yéey yàbbi ci waaye nag kii di Kader ñu gën ko xam ah, ci biram ah, ci ah, yenn ci ay séries sénégalaises moom Kader Gadji nag daal dinay rek décortiquer bi les chansons ni ki démb sax di wax naan gisu ci lu graaw ba nga xamante ni sax plainte mën naa jub rek muy ci ki nga xamante ne moom moo di Jeba waaye tamit kii di Ndeye Gueye daal dina ci yéey rek mer ba futt lool ci Abdou Karim Gueye sax kàddu yooyu nga xamante ni wax na ko di wax naan day porter plainte waaye nag diggante démb ak tey gis nañ rek internet bi ni mu yëngoo lool ci kàddu Abdou Abdou Karim Gueye yooyu ak ki nga xamante ne moom moo di Jeba ak ah, ci sax da koy retiré wala du ko a ab plainte sax daal di ci jip ah, mu mel ni nag ah, ñëpp daal dinañuy génn rek wala rek défendre ki nga xamante ne moom moo di Jeba ci clip boobu nga xamante ni sax daal dina koy rek duppee ko la mu a roi du mbalax l'international Youssou Ndour moom nag daal dinañ koy honoré waat foofa ca réew ma Rwanda loolu nag gannaaw ab cérémonie bu ñu duppee Kiwita Izina foofa ca Rwanda moom nag daal nañ koy accueillir rek comme ab roi moom Youssou Madjiguène nag mu wanewaat bu baax a baax ab taxawaayam waaye tamit star planétaire bi nga xamante ni daal na koy doon fësalaat ko gannaaw mu teewaat foofa ca réewum Rwanda ak sax accueil chaleureux bi nga xamante ni sax daal dinañ ko fay réserver kii di Nabou Dash daal dinay démentir bépp propos boo xamante ni rek yëkkati woon na ko wax ko sax ci Talla Diazaka jëmale ko ci ki nga xamante ne moom moo di Betty ab snap sax bu yees boo xamante ni mu ngi ci ànd ak ki nga xamante ne moom moo di taala jazaka euh, moom a Dash nag di yëkkati sax ay kàddu euh, di wax sax naan moom moo doon créé rek euh, loolu mu doon wax yëpp dara amu ci te taala jazaka taqewu ci laalewu ci ci kàddu yi nga xamante ni sax yëkkati woon na ko teg ko ci deram ak sax ci ki nga xamante ne moom moo di béti mu mel ni nag moom Nabou Dash live am yi mi doon def rek da doon faral di inventé rek di yëkkati yenn ci ay kàddu moom nag ci gémmiñam ma suñu nopp moom moo daal di yëkkati le kàddu daal di wax sax ne dara amu ci moom moo doon a créé rek li ni mel wax ci problème Visa Wally Balago Seck ak Viviane Chidid ñoom nag gannaaw ñu waroon a amal sax ab concert foofa ca États-Unis loolu sax laata loolu ni ki 3 septembre war nañoo amal li nga xamante ni sax moom moo di ab concert and ci ak Dip Doundou Guiss muy Wally Balago Seck ak Viviane loolu nag jëm sax ci yenn yoo xamante ni rek ay tournée yu ñuy préparé la ci li nga ni sax moom moo di concert bu États-Unis bi ñoom nag mu mel ni dañoo daal Ah, ngir rek ah, problème mu visa waaye nag ah, kii di Viviane daal dinay génn rek leeral li ni mel di wax sax ci coowal blocage boobu noonu muy wax sax naan dat bi la ñu daal di repousser rek waaye nekkul loo xamante ni sax ab problème bu graaw la concert ba date ba mu waroon am moom rek la ñu daal di pousse waaye amul benn problème ci li ni mel kii di Youssou Dieng yëkkati ay kaddu loolu nag jëmma ci la kii nga xamante ni moom moo di Keba Seck waxoon rek ci naan Wally Balago Seck amul kilifa loolu nag gannaaw mu daal di teew rek ci ab plateau daal di nay yëkkati sax ay kaddu défendre ki nga xamante ne moom moo di artiste am di Wally Ballago Seck muy wax sax naan kii di Wally Ballago Seck ñàkkul kilifa te du Samba Alaar loolu nag jëm rek ci kaddu yi nga xamante ni kii di Keba Seck di na koy yëkkati rek gannaaw ba nga xamante ni sax nemmeeku nañ ne famille Seck ñenn ña ñu nga jubali foofa ca subateel Wally Ballago Seck nag daal di mel ni sax ku neexootul ak ñoom tax sax ba ki nga xamante ne moom mooy seen baay di Keba Seck yëkkati woon ay kaddu rek rek naan xale yi dañoo dal di ñàkk kilifa Demba Guissé ah, yëkkati ay kaddu lool nag don ay point yu bëri sax bokk na ah, ci divorce ah, kii di groupe Mabo mu nekk Mia ak Nofees waaye tamit ci ki nga xamante ne moom moo di Bambali ak kii di Mandiaye sekk seen dem ca label bi di Subatel Musique waaye tamit dikkaat bu baax a baax ci relation am ak animatrice bu télévision Futur Média bi di Poté. Virginie nag nekk na actrice boo xamante ne kenn dootu ko présenté fii ci Sénégal waaye tamit mu doon ko xamante présence bu mag lool ci réseaux sociaux yi bi yoon nag gis nañ ko mu daal di gis nañ ko mu daal di génnaat ci beneen facette nekk ab pianiste moom la ñuy gis noonu ci photo yi moom Virginie Ndiaye mu mel ni nag yamul rek ci li nga xamante ne moom moo di cinéma bi dafay daal di yëngu tamit ci wàllum musique moom la ñuy gis noonu mu nekk rek en mode pianiste moom Virginie wax ci Dieyna Baldé moom nag daal dinay affiché wu rek mu nekk tamit koo xamante ni am na présence bu baax a baax ci réseaux sociaux yëpp yoon nag mu ngi affiché wu rek ah, ci ah, ah, otom bu yees bi Ford bi nga xamante ni sax moom la ñuy gis noonu mu daal di ci wàcce rek moom Dieyna Baldé wax ci ki nga xamante ne moom moo di tiktokeuse bi lëmbe woon réseaux sociaux yi fan yee ñu génn muy Badi Kelly moom nag gannaaw ba nga xamante ni sax coow na ci façon gu tiktok bi nga xamante ni mu ko doon def a séduire ñi nga xamante ni ñoom ñoo di yi waaye sax ci ñi nga xamante ne ah, dañoo daal di signalé woon rek bile kontam ngir rek waa TikTok andil koy problème ah, daal di tëj bile compte moom nag a cœur ouvert ah, daal di na yëkkati ay kaddu rek def ab interview loolu a wax rek ci moom origine mu daal di koy fësal ne sax ab togolaise désormais bépp publication boo xamante daf koy daal di def rek daf koy daal di def ci langue nasaraan maanaam publication en française lay doon moom nag daal di xamante ni ah, tiktokeuse boo xamante ni ah, lëmbe woon na réseaux sociaux yi ah, jamono yee ñu génn wàllum politique la ñuy waxtaane ak sax débauchage député Benno ak sax offensive bu socialiste gannaaw ba nga xamante ni sax ay kaddu jib na ci ñi nga xamante ni sax mën nañu jàpp ne mën nañu doon président assemblée nationale ñu daal di ci cité sax kii di Ahmed Aïdara waaye nag daal dinay démentir rek ab information boo xamante ni sax mu ngi doon lëmbe réseaux sociaux yi loolu nag jëm rek ci jot ab soutien ci mel ah, moom Ahmed Aidara nag daal di génn andi ab démenti ah, ci li di nga xamante ni sax dañoo jàpp ne ah, bés bu présenté woo rek ngir doon li nga ne moom moo di président assemblée nationale ñi fare ci nguur gi dañu koy daal di may loxo rek jàppal ko tànk loolu nag daal di nekk ay kàddu yoo xamante ni moom Ahmed Aidara daal di génn leeral ko ba noppi rek andi démenti ci li ni mel. ca lew na un caaroy mu mel ni ab dresseur xaj moom nag moom moo daal yi ca plage ba loolu nag di leen rek violé mu mel ni nag moom gannaaw ba nga xamante ni koy def ay xale yu bëri ba sax seen parents daal di remarqué li ni mel dañ ko daal di dénoncé rek ca police bu Thiaroye ñoom nag daal di koy defal ab descente rek teg ko loxo xale ya sax ñu daal di leen yóbbu rek hôpital ngir amal ab saytu moom nag mu nekk koo xamante ni sax day dress rek ay xaj di sëfal sax xale yi ngir rek bu ñu waxee li ni boole leen ni euh, amal na ay viol yu bëri ci ay xale euh, police bu Caaroy mujj na ko teg loxo tàggat yaram la ñuy jeexle wax ci match amical Sénégal ak ak Bolivie mu mel ni nag daal dinañ koy yóbbu rek ca diwaanu France foofa ca Orléans euh, mu mel ni nag vingt quatre septembre sax lañu ñu daal di jàpp rek ngir daal daal di amal bile match amical mu dox ci diggante Sénégal ak Bolivie loolu nag jëm rek ci waajal coupe du monde bi waaye nag buñ ci tegee ñetti fan rek Sénégal dina amalaat beneen match amical dox ci digganteem ak Iran Bamba Dieng ni ki démb amal na ab visite lool nag ngir dem ci club bi di Nice waaye nag mu mel ni visite médicale boobu dafa dal di échoué rek kii di président ba nag di Pablo Longoria daal di na yëkkati ay kaddu rek di wax sax naan Bamba Dieng jour olympique bu Marseille la dafa war a continuer ak ñoom des ci bile effectif mbokk yi safoon doon ñu teewlu li lañ leen andi loon seen acte du jour di leen ñaanal leen wax ngeen abonné suñu chaîne bi ngeen jëf